la nit ñi xamul mooy lan ay dugub la. yow xamal la ñu dugub nii nga it. non mais xoolal c'est le futur c'est le donc euh, mën na lu il est présentable il est toujours souriant et puis il a la musique dans le sang et c'est important. yeah wait and see ah, just wait and see. <laughs> ah. mais yaa daa ko ruubee ñëpp. mais moom moom mooy ruubee fu mu mooy ruubee lu. nee na ko xanaa nee naa ko nii xanaa nekkatul nag duggatul kese. dama koy ruubee. Ah, li mu nekkee la war a bàyyi. li may dégg bëri na. te jëf ci bëri na. na toog dama koy ruubee. <laughs>